dellusi na ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission al hidaya min al kitaabi wa sunna mu mel ni al hidayatu min al kitaabi wa mooy njub gi nga xam ne ëttu diine yépp moom la ñuy wut kon ñu rafet njortu ci ne yàlla danañu jàppale ci mbaaxam ba lu ñu fi wax rekk mu baña genn e ñaari téré yoyu te modi alquran ak sunna ñu ngi won ci tarbiya mu di yar yar nak waxon nañ ne di ci jitu moy nga fexe ba ki nga yar gëm yàlla moy tarsikhu aqidati tawhid ndax kullu mawludin yuladu ala alfitrah ku juddu rek judduwaale nga ngëm yàlla su ko defee nag si ñaari wayjur ñoo koy saxal wala ñu sempi ko su ko defee nag li nga xam ne fardu ayni la ci yow ñu jàngal la ko e, entraîné ci say cër tàmmal ko ko yonent bi ne bu xale bi amee juróom-ñaari at nanu ko tàmmal julli su amee fukki at sàggan ci nanu koy dóor dóor yu ko dul gaañ su ko defee nag xam googu muy xam boroomam ak tàmmal biñ koy tàmmal mu jaamu ko dana ko dimbali lool ci diineem su ko defee nag ñu jàngal ko jàngal ko sharia mu xam li xaraam ak li dagan xam li war xam itam li ñu sopp comme niñ ko waxe won firil ko alquran jàngal ko hadith jàngal ko fiqh mu commencé l'akhdari tek ci ashmawi euh tek ci al ashmawiya tek ci muqaddima tul izziya ba xalil ñu jàngal ko ko yooyu dana ko dimbali ci diineem dana tax mu man miraas man fas sëy dana tax itam mu mën a xam li yàq sëy ak li koy defar mën a xam li yàq julli ak li koy defar mën a xam laab mën a xam njaay la ca dagan nag yi ca xaraam yooyu yëpp dana ko dimbali ci diine moo tax suñu borom subhanahu wa di ñu wax ne na ngeen sàkku alaaxira ndax moo ëpp doole moo ëpp mujj waaye nag bul fàtte sa cër ci àdduna wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al axira waaye wala tansa nasibaka min addunia su ko defee lim la njëkk a digal moo indi tawxid wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al su ko defee loolu nag ngëm ak jëfe moo la koy may wala tansa nasibaka min addunia kooku nag fokk nga am métier ngir bañ rek nekk jullit bu doye di jullit boo xam ne balaa lekk ñu sarax ko l'islam bëggul jullit bu mel noonu dañu bëgg jullit bu am métier moo tax sa doom itam na nga koy yar ci métier benn mu jàng ba nekk professeur wala mu am yeneeni xeetu métier yoo xam ne ci njàngam la koy jële su fekkee ah xel mi neexul wala mokkul ci jàng nga fexe ba dugal ko ci yeneen xeeti métier yoo xam ne dana ci jariñ réewam jëriñ ci tabarakallahu boppam ndax nit la yàlla digal pour mu dundal suuf suñ borom ne wa ahsin kama ahsana ilayk mu jëm nag ci almuamala muy jëflante bu rafet ci diggante jullit ak mbokkam ci diggante jullit sax ak dëkkandoom donte yéeféer la waaw li la ci lislam wax mooy almuamala alxasana waaw wa nanga rafetal kama axsana allahu ilayk comme ni yàlla rafetalee jëm ci yow comme yàlla tooñu la te teral na la waaw te fonk na la nee na jëflante boobu yàlla jëflanteek yow noonu la bëggee nga jëflante kook ñim la booleel ngay dund ak ñoom ci benn société bu leen tooñ mukk bu lekk seen àq bul wax ci seen der lu ñaaw bul tuur seen deret waaw su ko defee rek ah noonu yàlla rafetalee jëm ci yow nga rafetal ko jëm ci ñoom boo amee teral leen boo xamee lu baax wax ko boo xamee lu ñaaw nga téye sa làmmiñ ndax wa qulu linnaasi xusna yàlla nee na di leen wax ci nit ñi lu baax waaye lu bon moom kenn waru ko wax mbokk jullitam moo tax suñ borom ne wala tabxil fasaada fil ardi su ko defee nag bul sàkku yow yonent bi mukk di nekk kiy yàq ci kaw suuf yàq ci kaw suuf nag bari na mooy képp koo xam ne yàlla jox na la njaboot yaroo leen yàq leen yaa ngi yàq ci kaw suuf ku seetaan sa njaboot surtout bu dee jigéen yàq nga école bu rëy te yar yépp yar jigéen moo ci gën a metti moo tax ñu ne yonent bi nee na ku am ñaari doom yu jigéen sonne seen yar ba ñu mat a sëy nga maye leen nee na loolu doy na sëkk sak àjjana kon wala tabxil fasaada fil ard li ci jiitu mooy nga am njaboot bañ ñu yàqu ndax bu ñu yàqoo dafay jur société bu yàqu ndax su fekkee kër gu ne yar nga la la yàlla jox ci njaboot looloy tax mbedd mi jag ndax ñii ci mbedd mi yépp ci kër yi lañu génnee bu fekkee ku génn ci kër yar ak teggin nga fa génne kon mbedd mi jàmm rek a fay am jariñante rek a fay am yiw rek a fay am yàq ci kaw suuf nag bokk na ca lii ñuy tuddee drogue bul nekk mukk ki koy jaay walla ka cay liggéey mukk bul nekk itam ki koy jëfandikoo ndax dafay yàq dorog nag bu ndaw ba moo xam cigarette la ak bu mag ba ñoo ca yem benn baaxu ci moytul cigarette ndax cigarette baaxul ndax ñaare soo moytoo cigarette rekk doo yegg ci yàmba bay yegg sax ci cocaïne ak yi mel ni moom kon drogue baaxul ndax bokk na ci yi yàq ci kaw suuf bokk na ci yi yàq ci kaw suuf sàcc rawatina sàcc yi nga xam ne dañuy organiser wu nekk ay bandi yu nga xam ne dañuy nekk ci dëkk di dajj bitig yi di rey nit ñi di yàq alal kon wala tabxil fasaada fil ard lépp loo xam ne dafay jur ak yàq ci ko suuf suñu boroom tere na ko jullit bi tere na ko itam mu yare ko njabootam ndax inna allaha yàlla laa yuhibbul mufsidina bëggul ñuy yàq su ko defee nga yar sa njaboot ci mu xam ñi ko yàlla booleel te ñi ko yàlla booleel nag ke ci jiitu muy wayjur yi ko meññ mu xam seen àq jox leen ko ndax wayjur moo wuutu yàlla ci jaam bi ba tax suñu boroom jaam bi mënu koo teg bët ndax taxawaayu wayjur lépp lu yàlla waroon a def ci wayjur jaar ci doom jaarale na ko ci wayjur kon dafa làqatoo wayjur waaye suñu boroom nag di boroom jikko yu rafet boroom jikko yu kawe yoo xam ne kenn du jéem a niroog moom sax jikko ndax ni ay jikkoom kawe bokk na ci jikkoom ya mooy du suul njëkk mukk moo tax mu jox wayjur àq boo xamante ni doom bu ko fooyee rek mu dog la ci boppam ba pare nag duma la fii ci àdduna duma la àllaaxira kon bu fekkee importance boobu la waajur am dafay jaadu ñu waxtaan ci lan mooy àq ak yelleefu waajur wi nga xam ne moo meññ te itam moom la borom bi làqatoo sa natakallam an xaqil walidayn لقد فطر الله الوالدين بحب الأولاد والاهتمام بهم والرعاية لهم ولكن هناك من الأولاد من ينسى هذا الحب وينسى هذه الرحمة ويندفع تارة إلى القسوة والعقوق وتبلغ هذه القسوة منتهاها إلى الضرب والقتل في بعض الأحيان ñu ne suñu boroom subhanahu dafa mooñ ñaari wayjur ci ñu bëgg seen njaboot bëgg seeni doom ak di yittewoo seeni mbir loolu même wayjur bu ko deful itam xëy na circonstance la waaye wayjur bu ne yàlla mooñ na ci yow bëgg sa njaboot ak yittewoo ay mbiram jamono nag léeg-léeg mu am nu mu bindoo ba jur du mën a am taxawaay boobu waaye bu boobaa lañu sant doom mooy mu bañ a fayantoo ndax jur kenn du fayantoo ak moom bu la juróon sànni la sax lislaam nee na wër ko ba gis ko ndax ci moom ngay defaroo su ko defee boo amee dërëm jox ko soo amul dërëm liggéeyal ko ñaqal ko su ko defee loolu dana jur ci yow barke dana jur ci yow taraanga dana jur ci itam wërsëg ak ubbeeku dana jur itam ngërëmal yàlla moo tax cofeel googu yàlla mooñ ci way jur way jur yu bari di sonne yar seen njaboot di ñaq di leen jox eh, la woykat ba waxoon ne ahabu nnaasi li ummi wa man bir ruuxi tafdiini nee na ki ma gën a bëgg ci nit ñi mooy sama ndey mooy ki nga xam ne tey moom dong laa mën a wat ne su ma naree dee jar na dana ko jaral mu joxe ruuxam te man ma dund waaw mu mel ni loolu dégg gu wér la ndey moom ni mu mel ci doom jéggi na dayoo moo tax Euh, am na ci doom yi ñen ñu nga xam ne suñu demee ba yàlla def leen ni mag ñu am taraanga ah am yeneen i àndandoo dañuy fàtte démb dañuy fàtte cofeel googu leen wayjur yi ëmbaloon dañuy fàtte yërmande ga dañuy fàtte itam sonne ga sonne ga ndax bi nga dee xale tollu ji sa Nyari at ñetti at mënuloo sa bopp dara rawatina ba nga nekkee liir wayjur yi di sonn di la jox ngay lekk da nga xeeb meew moomu nga doon naan ah soxla woon nga ko te xamuloo foo ko jële fonde bi nga daan naan soxla woon nga ko xamuloo foo ko jële nga dem ba toll ci dox jëndal ma glace jëndal ma tàngal jëndal ma nangam jëndal ma nangam ba ci ay fowukaay yoo xam ne boo ko ñàkkoon ci sa dund itam wàññiwu la dara yooyu yëpp dana leen jaral ñu jël ci seen wërsëg di la ko jëndal bu feet amee ñu xotti soo tëddee nelaw amaana ñoom sax ay bor la nu yenu pour dab sa bànneex yaa ngay nelaw yaa ngay fo dara waru la ñu nekk ci coono boobu ak yow ba nga xëy tekki rawatina ñuy sonne sa njàng di fay sa école tabaarakallahu di la toppatoo boo feebaree dootuñu nelawati di la jàppale di la jàppale di la jàppale ba nga xëy tekki nga foog ne mën nga leen a fay boo demee tey ci réewu tubaab yi waxuma la sax di jox sa doom mu lekk di ko jox mu naan waaye mbindaan mi nga xamante ni rek daf leen di téel xale bi pour ñoom ñu mën a dem liggéey rek lanu koy fay ci xaalis kenn xamul nu mu toll waxuma nag lekk ga waaye këlay téye rek wutu leen waaw xaalis bu bari leen koy fay kon loolu buñ la ko fayee ko woon mu metti rawatina nag sa assurance nga xam ne tey caay-caay gu ne mënoon nañ ko ci buñ la soxlawul walla nga lakkal leen rey la yomb na lool ci ñoom surtout suñu réewu Afrique yi nga xam ni daanaka autopsie amul waaw rey yomb na leen lool waaw buñ la yërëmee nag ba nga dund ba yegg fenn fi nga la waay ah, bul topp jamono ak doxam nanga bàyyi xel démb coono ga na bàyyi xel démb yërmande ga na nga bàyyi xel démb tabaarakallaahu yittewoo ga ñu doon yittewoo say mbir ba nga xëy sa lépp baax kon bu fekkee dañu wax ne ki ñu jur sànni sax sañu ta sañu ta beccangal way juram sañu ta fayontoog moom diine mayu ko ko mukk waaw diine mayu la nga ne dangay ngay sa way jur boo ko defee amuloo diine te boo dee safara nga jëm lu la wayjur tooñ tooñ tooñ baal ko waaw baal ko ndax yàlla nee na rafet rekk lu rafet rekk moo war a dox sa diggante ak sa ñaari wayjur moo tax suñu boroom teg yar bu rëy ci diggante doom ak wayjur moo tax yonent bi daan ñu fàttali ne fal uququ min akbaril kabair na ngeen bàyyi xel ne Eh, dëngoog say wayjur juboo dikoog ñoom teg ko ci bakkan dañu wax nag teg ko ci bakkan nee na bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy bëri na koo xam ne tey nag li tax mu juboo dikoog wayjuram mooy wayjuram daf ko bëgg a sëyloo ku mu bëggul surtout góor góor kenn du ko forcé fekkee loolu la meree nag tegu ko ci sharia lislaam daal li mu wax mooy jigéen boo xam ne mosul sëy mu di ab jànq kooku mën nañ ko forcé ci sëy ndax xamagul dara waaye jigéen bi mës sa dugg ci sëy ba génn sax kooku kenn du ko forcer dañ koy bàyyi mu tànnal boppam su ko defee nag bu fekkee mere gi ci côté boobu la loolu mere bàkkan la waaw ah sëñ Babacar nag daan wax radiallahu taala anhu ne cagar si càkket si càq si nee na ñett yi daal mooy fondement toppatoo sa wéyjur fexe ba suturaal yaramam muy sol lu baax nga bañ di solu te bàyyi sa wéyjur mu rafle su ko defee na nga yittewoo sa col nga yittewoo ko sa coluk wéyjur di ko suturaal ci yére loolu mooy cagar si kon nag ku bàyyi sa wéyjur mu rafle ne la leer ne bàyyi nga àq bu rëy ci wàllu colam ba ca topp mooy càkket si mooy nga yittewoo dëkkuwaayam su ko defee su fekkee ah seen koom-koom ci sàkket la yem nga fexe ba at mu ne nga jubbanti sàkket ya sàkketaat defaraat ba mu baax bu dee baraak la nga daaj waaw su fekkee tabax la itam ngay toppatoo miir ya waaw di peinturaat ak la fu am fissure nga defar waaw su ko defee xool ba muy tëdd jag na wala jagul xool mat ba màtt na wala màttul yooyu yëpp lislaam daf ko sant eh, doom pour mu koy toppatoo ci waajuram su ko defee eh, dëkkuwaayam war nga ko xool xoolal douche ndax dafay bouché wala déet seet daal ba nga xamante ni dëkkuwaayam dana mucc ayib waaw am na ñoo xam ne tey ñu ngi dëkk fu baax bàyyi seen waajur dëkk fu bona a bona bona bon loolu itam wax dëgg yàlla nit ku gore du ko def ndax ba ngay doon xale lal bu sa jur ma sa tëdd tëral na la fa bàjj bu mu ma sa sàngoo sàng na la ko waaw léeg sax mu sedd guy waaw te e, bu sàngoo du jot mu faf la sàng moom tëdd ci sedd bi ndax yërëm la waaw mësuta fanaan ci néeg bàyyi la nga fanaan ci biti waaw balaa xelema dal mu seet ndax tëdd nga wala tëdduloo waaw boo jooyee ci guddi gi mu jóg balaa am jàmm nga nelaw ah, kon boo demee ba yàlla jox la wërsëg itam yow itam war ngaa yittewoo dëkkuwaayam war ngaa yittewoo itam tabarakallahu eh, fa muy tëdd ndax jag na wala jagul néegam jag na wala jagul waaw yëpp lislaam daf koy toppatoo ci jullit bi ci digganteem ak waajuram ba ca topp mooy lekkam mooy càq si waaw càq si lislaam nag eh, waxu la añ reer ndékki loolu moom ñun ñoo ko eh, teg suñu bopp waaye benn dépense la lislaam santaane nga joxe ko mooy boo xëyee daal bis bi joxe joxe ci lu nit ñi mën a lekk moo xam reer la wala añ la wala ndékki la waaw su ko defee nag eh, ñun moom njobanal sax léegi dugal nañ ko ci xale yi guteek yooyu yëpp dugal nañ ko ci mais yooyu du farata liy farata daal mooy bu ñu xëyee nanu añ wala ñu reer wala ñu ndékki ndax nit moom lekk ñetti yoon ci bis eh, kenn santu ko ko ndax benn lekk rek mën na koo téye bisu lëmb waaw ndax boo ko xoolee ci koor rek tabaarakallaahu daal di xam ne loo war a mën a ne la su ko defee nag liñ la sant ci wayjur mooy nga fexe bay toppatoo sa wayjur kem talaayu li la yàlla jox mooy fexe ba gàddul ko dépensam ñu bari xamuñu ne dafa am ñu nga xam ne bu ñu xiifee yàlla laaj la ko ñooñu mooy jabar ji la yàlla jox ak sa ñaari wayjur ak njaboot gim la jural njaboot gi fekk euh, amuñu jëkkër ña cay jigéen dépense wàccu la ci ñoom waaw jigéen ñi moom fekk amuñu jëkkër dépense wàccu la ci ñoom yaa leen war a dundal ku ci am jëkkër nag sa dund wàcc na la waratoo leen dundal su dee góor ñi ku ci am dix-huit ans fukki at ak juróom-ñett wala mu nekk muskallaf kooku itam bu boobaa dundam wàcc na la moom moo war a yittewoo ji dundam loolu nag yombul ci suñu réew mi da ngay gis ku nekk ci fanweeri atam te balaa génn ne yaay ana añ bi wala ana reer bi te loolu moom la war kon punkal muy laaj ndeyam reer ak añ ñàkk jom la loolu ñàkk jom la dix boo ko xasee am sa baay waratulaa dundal loolu mooy lislaam waaw sa baay waratulaa dundal boo xasee majeur majeur sax ci lislaam am ñu ngi koy wax ci juróom fukki at ak juróom-ñett mais mën na ko gën a néew ndax bu dee jigéen su indisposé rek majeur na bu dee góor bu amee kawaru poqutaan wala mu gént wala mu am kawaru naq su boobaa itam majeur na te loolu léeg-léeg mu jiitu fukki at ak juróom-ñett surtout xale yi léegi moom bari na ci boo amee seetlu xale yu bari kawar danay faral di feeñ ci ñoom te sax duñu am fukki at ak juróom kon lislaam loolu la sant ci wayjur toppatool dundam di ko ko jox nay lekk ba suur nay sol sol lu baax na dëkk fu baax boo ko mënee nag soo ko mënul nag fa sa kàttan yem rek foofu la la yàlla yemloo bi maana sa wayjur kat yow xartum nga am ak Lagos su boobaa lislaam santu la mbasin ndax day bañ nga sàcc day bay nga itam yenu bor yoo xamante ni mën na laa dugal kaso te yàlla du teg nit lu mu mënul mu ne kon nag yemal ci jëndal ko xartum ak Lagos su fekkee nag sa wërsëg nag àgg na ci fu ëpp foofu bu boobaa nag foofu la la lislaam di xool jëndal ko yére yu baax su dee ne wàllu dëkkuwaay itam sa kattan ak sa wërsëg ci sàkket la yem bu boobaa sàkketal ko waaye nag bu la leeree ne tey li la yàlla defal ci wërsëg àgg na ci nga tabaxal ko bu boobaa nag tabaxal ko ndax loolu moo yelloo ak moom lekk itam bu fekkee yow ceebu keccax rek nga am wala sombi wala laax ndax foofu la sa kàttan yem foofu la sa wërsëg yem lislaam santu la nga koy jox ay monsieur ki ganaar waaw ngir ngis ak bëgg maa def tax nga dugg ci lepp wala nga dugg ci yeneen yi pour nit ñi xam ne yaa ngi góorgóorlu ci sa wayjur déedéet lislaam nee na li la yàlla jox yem ca te bañ a dugg ci loo mënul kon su fekkee nit ki taxawoon na ni ñaari wayjuram ci seen dëkkuwaay ci seen col ci seen lekk su boobaa nag mu am yaakaar ci ne xolu yàlla sedd na ci moom mu am yaakaar ci ne mucc na ci bàkkaar bu rëy gannaaw si gi nag nga xool nooy jëflanteeg ñoom ci muamala bu rafet bañ di tàngal seen xol di wax ak ñoom waxu yar ak teggin bañ leen a yàpp te def leen sëriñ moo tax yenent bi di ñu dànkaafu di wax ne al uquuq ak akbaril kabair nee na ñàkk jubóog say wayjur te teg ko ci reewande nee na mu ngi bokk ci bakkaar yi gën a rëy mu ne ndax yàlla moo wax ci alquran ne wa qada rabbuka an laa taabudu illa iya wa bil walidayni ixsaana moo tax ixsaan boobu mooy euh, fi góoru yàlla yi taxaw ndax liimaan euh, ak lislaam ak lixsaan la lislaam mooy nga jébbalu dugg ci diine liimaan mooy nga def ko ak ngëm gu wér lixsaan nag mooy nga def ko ak yar teggin ba mel ni yaa ngi jis yàlla kon nag su góoru yàlla yi mënee taxaw foofu di ca am lu ne yow itam boo toppatoo say wayjur mën ngaa yëg ci maqaamu boobu moo tax asayid al cheikh ahmed tijani radiallahu taala anhu moom boole na ci charti tariqaam balaa nga koo jël nee na dana la wax ne la ku ko jël te di tàngal sa xolu wayjur doo doo jëriñu ci tarixa bi kon nag bokk na ci chart yi mooy balaa ngaa jël tarixa bi nga nekk ko mokk ci tarbi ci say wayjur nekk ko mokk ci fonk say wayjur nekk ko mokk ci bëgg say wayjur nekk ko mokk ci yërëm say wayjur su boobaa nag danga nga mën a jariñoo tariqa bi mu mel ni suñu boroom wax na ni lu diggante bi ñagas-ñagas ci wàllu wax bàyyi ko moom mu wax ba saaga la waaye yow bu wala taqul lahuma uffin nee bul sax jàmbat te dégguñu ko jàmbat goo xam ne yow dong yaa ko wax ci sa làmmiñ ah, góor gi daal ah, fekk ba nga koy wax yaa ngi kenn fekku la fa yàlla nee na dégg naa wax bi te naqari na ma waaw moo tax ñu ne law kaana hunaka aqal min al uf la qaalaha rabbuna wa taala su fekkonte am na lu gën a néew baatu uf kon yàlla dana ko wax kon mbokk yi wayjur daal suñ borom fonk na ko moo tax boo demee ci saxiixayni ci xadisu abi bakrin radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam waxoon na ne ala unabbi'ukum bi akbari alkabair qaalu bala ya rasul allah qaal al ishraaku billah wa cuququ alwalidain wa shahaadatu zuur yonent bi sallallahu alayhi wax na ne saxaaba yi xanaa duma duma leen wax xanaa duma leen solo nettali leen bàkkaar yi gën a rëy ñu ne ko aha kay yow yonent yàlla bi mu ne bàkkaar yi gën a rëy bi ci njëkk mooy bokkaaleek yàlla yàlla du ko jéggale ñu ne ko ak ban mu ne dënge say wayjur wan leen reewande gu mat sëkk xam ne teguluwul ci yoon mankeel say wayjur ñàkke leen respect ñàkk leen fonk nee na bokk na ci bàkkaar yi gën a mag te moo leen ñaareel bi ñetteel mooy shahaadatu zuur mooy seede seedes nen seede boo xam ne dara du ci dëgg lépp ay fen la mu mel ni ashirku moom ku ne xam na ne mooy li yàlla bañ te du ko jéggale dëngi say wayjur itam moom lañuy ñuy waxtaane waaye shahaadatu zuur bi leen ñetteel moom itam mën nañ fi taxaw waaw an urakkiza alayha dama fi bëgg a taxaw tuuti pour ñu xam lan moo di shahaadatu zuur shahaadatu zuur dana am ci journalist bi nga xam ne dañu jënd xalimaam ne ko yàqal ma deru diw mu xëy bind ci journal wax ci deru diw moom lu ko sopp fekk dañoo jënd xalimaam mais la muy wax yépp dara du ca dëgg te xam na ne moom mi ko bind xëy na politique a tax mu def ko wala leneen waaye xam na ne li mu bind dara du ca dëgg loolu dafay dugg ci shahadatu zuur bëri na ci métier suñu mbokk journaliste yi ba ca topp mooy itam léeg-léeg borom alal bi dana koy jëfandikoo ci ki ñàkk su fekkee dafay fexeel noonam ñu fexe ba tuumaal nit ñu wut ci ay seede fay leen ne leen bu ñu demee tribunal na ngeen wax na yéen a fekke loolu itam dana waral bu dee réew mu mel ni Amérique su dee ne lañu tuumaal kooka rey la kon tuuma googu dana ko yóbbu ànd ak seede yooyu nga xam ne seede nanu cig neen euh, dana ko yóbbu ci ñu rey bakkan boobu te dara tegu ko ko lu dul shahaadatu zuur kon mën na dugal nit kaso mën nañ ci tabaarakallaahu tuur bakkanam shahaadatu zuur même suñu société da ngay gis jigéen joo xam ne dafay wujj ci famille taaram jéggi dayoo mu dem ba ay wujjam mënuñu ko supporter amuñu benn bunt bu ñu mën a wéeru pour yàqal ko ñu xëy tam ko tam ko ne dëmm la tam googu topp ko te ñoom ñooñu ko wax di ko seede ci barab di ko wax seedes neen la dara du ca dëgg te yàq neen ci famille lëm boo xamante ni lu ca jóge e, seen sëy jafe lu tax seen seydi jafe mooy lii ñu leen seedeel te dara du ci dëgg te ak piiraange ku gujje gu metti rekk moom moo ko waral shahadatu zuur li mu mën a yàq ci société bari na dem na ba sax dégg nga nga gis borom wilaaya borom maqaama boo xam ne leer na la kii góoru yàlla la waaye shahadatu zuur tax ñu weddi loola ak wilaayaam ba nga foog ne amul ci wilaaya dara su ko defee ña waroon a jóg jëm ci moom mu teg leen ci yoonu yàlla jëriñ leen ci zaahir ak ci baatin dañuy mujj jàppee ko noon jàppee ko nit ku woyof fekk ku diis gann la ca yàlla shahaadatu zuur daal bokk yi mooy seede boo xamante ni ak fukk nit mën a seede ak lu mu mënti doon te mu leer na ne yow lii ngay wax du dëgg te xam nga ne du dëgg te xam nga ne du dëgg waaw ak a fee bari da nga gis nit ku ñëw ci grand place di wax ñu xanaa diw doo gis ku la weddil waaw te la diw moomu di nettali ci diw male daanaka kenn fekkewu ko ci waaye kenn du dindi ñëpp a cay d'accord loolu lépp day dugg ci shahadatu zuur mooy dëggal loo xamul te fekkewuloo ko nit lum xamul da cay maandu ñu ne nag bi yonent bi sallallahu alayhi àggee ci ñetteel bi te moo di shahadatu zuur daf ko doon baamtu naan moytu leen seedes neen moytu leen seedes neen moytu leen shahadatu zuur moytu leen ko moytu leen ko ay waay saxaaba yi moytu leen ko nee di ko baamtu di ko baamtu di ko baamtu ba ñun sax dañoo mujj wax ne laytahu sakata aka neexoon mu noppi ndax ni ko yonent bi doon baamtoo rek baamtu na ko wax ko lu bare bare bare bare bare la pour rek ne li mu mën a jur ci musiba dafa bari waaye itam noonu la bàkkaaram rëye kon ñetti bàkkaar yooyu bàkkaar yu rëy lanu ndax ci kabaa'ir leen bokk kabaa'ir nag mooy bàkkaar boo xam ne daf lay dugal safara bàkkaar boo xam ne dafay wat sa jëf ju baax joo ma sa def sa digganteeg sa boroom bokkaaleeg yàlla shahadatu zuur ak dënge sa ñaari wayjur ñu ne jële neen ci abdullah ibnu omar ci xadis bi nga xam ne buxaari moo ko solo ak muslim mu wax ne bokk na ci bakaar yu mag yi itam li ñuy tuddee saaga ñu ne ndax kii saaga wayjuram la saaga kon respecté wul wayjuram waaw ndax boo saagaa nit mu saaga la kon ya saaga lu sa wayjur moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne min al kabairi an yashtama rajulu walidayhi ñu ne ko naka la nit mana a ŋàññee ñaari wayjuram mu ne mooy mu saaga wayjuru jàmbur kooka itam saaga wayjuram kon saaga baaxul waaw saaga baaxul ndax nit dana ko def foog ne Eh, deful dara fekk def na bàkkaar bu réy ñu ni itam fal uquuqu sababun lil xirmaani min al janna eh, ñàkk dëppoog sa wayjur teg ko ci reewande waxuma nga teg ko ci dëgg mais teg ko ci reewande wax ne ne daf lay xañ aljanna loolu nag xadis ci ñëw xadis boobu ñu ngi ko jële ci abdullah ibnu umar radiallahu anhu mu ne thalathatun laa yanzuru allahu ilayhim yowma alqiyaama bi ayni rahma alcaaqu li walidayhi walmaratu almutarajila waddayuuth yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii yàlla du leen xool bëtu yërmande yowmal xiyaam waaw yàlla du leen xool bëtu yërmande yowmal xiyaam du leen ko xool mukk ñu ne ko mooy kan mu jiital ci ki nga xam ne respecté wul ay waajuram faalewu leen teralu leen ñu ne ko ku ca topp mu ne jigéen juy góor góorgóorlu almaratul la jigéen juy góor góorlu mooy jigéen joo xam ne ah léeg-léeg sax danga koy dégg xale yi di wax naan na góore na góore ah yow kay boo dee jigéen na jigéene xëy na bu dee góor ñu ne na góore waaye jigéen moom na jigéene ndax jigéen bëgguñu mu góore ci làmmiñam bëgguñu mu góore ci doxam bëgguñu mu góore ci yaramam na jigéene rek su ko defee jigéen ji niru niru lu góor yàlla du ko xool ëllëg yomal xiyaam bëtu yërmande léegi nag ci col jigéen ñeeg góor ñu ñoo niroo ci wax jigéen ak góor ñi ñoo niroo ci dox jigéen ñi ak góor ñu ñoo niroo kon nag ragal naa ne suñ jamono ji yomal xiyaam yàlla jigéen ñu bari du leen xool bëtu yërmande ndax niru gi ñu niroo ak góor bi ko ñetteel mooy addayu addayu mooy kilifa gu bañ bañul lu bon ci këram kilifa goo xam ne moom du am gàcce mukk ci ñu uufal ko doomu njaalu ci biir këram defu ko gàcce faalewu ko au que sax mu def ko naqar waaye dafay faf ngénte teg baaful yu rëy di wan yàlla ne ko lii ñu def kat naq naqariwuñu mais daf ñoo neex ay dayus mooy koo xam ne faalewul euh, njabootam ci dara du leen toppatoo ci dara surtout jigéen ña leen yàlla jox seen yoon nekku ca ca yar ba rawatina ki nga xam ne dafa am jabar solal jabar ji ba mu rafet waaw léeg nga gis ko ci e, e, ñawkat yi e, silsi yi léeg ci seen défilé yooyu nga ñuy def ah, nga gis robb yoo xam ne dañ koy fant ba ca kaw waaw fant fant fant ba ci kaw xamante ni daanaka xotti biñ koy xotti tuutee ci des rek dén déng mu yegg ca la gën a ruqe ci ndaw sa nit jëndal ko jabaram nag solal ko ko ànd ak moom yóbbu ko ci xaritam rawatina mu leen di nuyu di akolaat di tàppante faso ak ñoom kooku la la yonent bi wax ni mooy dayuus mooy koo xam ne dafay jaay jabaram ci biiri xaritam di wane taaram di wone ne sama jabar rafet na ñett ñi ëllëg yomal xiyaam yàlla du leen xool mooy kon ki dënge way juram jigéen ji niru niru lu góor ak kilifa ki bañul lu ñaaw lu bon bañul bakkaar ci njabootam wa thalathatun la yadxuluuna aljanna yonent bi ne na ñett ngi nii yoo xam ne duñu dugg àjjana ñu ne ko kan la mu ne al aaqu li walidayhi wal mudminu al xamr wal mannaan waaw kon ñee yàlla du leen xool bëtu yërmande ñu boole ci ki dëngook way juram ñii ñu ne duñu dugg àjjana ñu boole ci itam ku dëngook way juram kon nag daanaka daal yu bon yi nga xamante ni yàlla da koo jéppi bu ci ne rek tudd na ca koo xam ne jubawul ak waajuram du leen teral du leen toppatoo faalewul seen dara xamuñu feebar nañ wala feebaruñu xamuñu lekk na wala lekkuñu xamuñu naan na wala naanuñu xamuñu rafle nanu wala raflewul moom daal yoonam ci waajuram rawatina ñi féete bitim réew nga xam ne da ngay nekk France wala Allemagne wala nga nekk Amérique ah nekk ci sa bopp ànd ak tubaab yi waaye sa yoon nekkul ci say wayjur waaw te boo amee noo mel ba mën a dem foofu ñooma ndax ñoo la taxawu ba tabarakallahu ah, surtout sabab gi ñu sabab sax sa juddu waaw ndax su fekkonte ne dañu doon daw responsabilité dégg nga daanaka du ñu àgg sax ci amal la ndax mën nañoo fa nu mu leen neexee te du ñu am doom kon nag bu ñu góor góorloo ba amal la am gi rek mënoo leen ko fay waaw nga nekk nag ci réew yooyu di ànd ak tubaab yi nekk ci dëkkuwaay yu neex yi a ah, wala sax nekkoo ci dëkkuwaay yu neex yi ndax bitim réew neexul waaye daal yàllaa ngi lay defal di la suturaal waaw nga fàtte leen nekk ci sa bopp ah, képp ko def loolu yàlla du la xool bëtu yërmande yowmal xiyaam te itam doo dugg aljanna moo tax yonent bi ne ñett a ngi nii duñu dugg àjjana mooy ku faalewul ay wéjuram ak sulaar bi naan sàngara solar bi nga xamne da fay nan ba du xepi ñu ne ko ak kan keneen ñettel mu ne mannan al mannan moy ko xamne lu mu defal nit ñi rek wax ko waaw lu mu defal nit ñi rek wax ko mom dal dalay defal di xar bis waaw waaw la tukulóor ba defon abal waji dal daal bu rafet bu weex waaye xew mi yëpp daal moom basin bi lay xool rek fu waa ji war a toog rek mu ne ko moytul fii waaw moytul fii dafa am poussière moytul fii nangam moytul fii nangam ba mujj gi nit ñëpp xam ne mbubb mi kat moom moo ko moom waaw dañu bëgg jàmm bi di def ngir yàlla def ngir yàlla te yàlla tax waaw koo defal ngir yàlla fàtte ko waaw waaye nag ah koo defal bu ëllëgee su ngeen werantee ci werante bu ndaw sax nga ne ah xanaa tey ndax bu doo nag man doo jekk képp koo xam ne looloy sa jikko doo dugg àjjana moo tax suñu borom di ñu wax ci alquran ne laa tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada mu mel ni eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñuy defal orientation ci naka lanu mën a def ba jariñoo yàlla ci suñuy doom te mooy ki gën a dangereux ci ñoom mooy wayjur ñu xamal leen wayjur mooy kan ak yan àq ak yelleef yi mu am ñu jox ko ko moo tax ñu ne euh, ci xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax ñu ne daal alcuququ laa yasluxu maahu amal nee na daal dënge sa ñaari wayjur mënta ànd ak yàlla di la yéwénalal wala mu lay nangul benn jëf boo ko mën a defal moo xam julli la wala koor la wala azaka la wala aj moo tax sum salli zakki xuj boo ci mënti def te fekk na yaa ngi dënge sa ñaari wayjur faale woo na la leer ne yàlla nangulu la dara moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis ne thalathatun laa yaqbalu llahu minhum sarfan wala adla ñu ne ko kan ak kan la mu ne aaqilun aaqun li walidayhi wal mannaan wal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñett ngi nii yàlla du nangu ci ñoom naafila du nangu ci ñoom farata waaw asarf mooy farata al adl mooy naafila ñett ngi nii yàlla du nangu ci ñoom sarfan wala adla waaw bu ñu julli woon seen giiru dund julli juróom yi mësuñu ko manqué yàlla du ko nangu suñu dundaloon guddi yi di naafila bis bu ne guddi gu ne yàlla du ko nangu ñooñu ñan la mu ne ku mooy say wayjur dëngoog ñoom te faale woo leen te teg ko ci bakkan ak reewande nee na kii dey yàlla du nangu julleem du nangu julli farataam du nangu naafilaam du nangu kooru farataam du nangu naafilaam du nangu azakay farataam du nangu itam saraxam du nangu aju farataam du nangu itam umraam mhm. ah dem mak umra naa nangami yoon aj naa nangami yoon waaw te foo dem ne jubawuma ak meer bi jubawuma ak paa bi te lépp nga teg ko ci reewandeeg fuuy waaw ak gëm sa bopp eh na la leer ne loolu nga def yëpp yàlla nanguwu ko yonent bi moo wax de ñu ko ak kan mu ne ki nga xam ne moom lu mu defal nit ñi mu ngi xaar bis pour wax leen ko ñaaxaate rek waaw wolof da koy wax góorgóorlul bu la baay mayee ñaax la bu la yaay mayee ñaax la waaye nag loolu liggéey yaa ko moom su ko defee ñaaxaate boobu baaxul donte bàyyee ko def doom wala ndayee ko def doom waaw wala sax doom def ko waajur ah léeg nga gis doom yu ko def waaw ah di defal say waajur di defal di defal ba foog ne fay nga leen aw day am tabaxal leen yor leen yor bu rafet ñu xiifuñu ñu tax sax nga bëgg a wane benn autorité bi ci seen kaw loolu yàqal ñu bari waaw loolu na ñu bari te foofu nga war a gën a ragale waaw loo leen defal defal defal rek njaboot nga waaw ma ngi dañu wax ne boo gisee Firawna yàlla suturaal ko bareyewu ko ci këram suturaal ko mu yilif ngur gu tol ni ngur gi mu yilif kat siècle du dara lu topoto ndayam moko ko may aw ko fonko ndayam la bala lekk ndey je lek waw bala nan ndayam nan ba nopi motax yalla may ko nguram gogo kon nak yow itam lu sa wërsëg bari bari ak loo leen ti defal itam bu bu bu mu tax mukk nga foog ne yalla leen wara yilif waw ñoo la yilif waw motax ba waaja dee wër kaaba gi yenu ndeyam di wër kaaba gi bu dajeek yonent bi rek xool ko continuer def ko ñetti yoon yonent bi ne ko waaw danga may wan ne bootoon na la ba ngay gone léegi nag boot nga ko bi muy mag danga ma bëgg won ne fay nga ko bor bam la lebaloon xale bi ne ko waaw mu ne ko ba ngay ndaw jooy fekkoon ko muy liggéey mu bàyyi lam doon def gendee ba mu gendee ko xool la bëtu yërmande xool boobu ba léegi mënuloo ko ko fay te boo ko doon fay doo ko mën a dab mukk waaw ndax dafa am ci awliyaaw yi surtout yonent bi sallallahu alayhi wa jaamoom goo xam ne ibaadatu nii la benn julli yonent bi benn naafilaam tolloog ñun suñu jaamu boo dajalee woon nit ñëpp waa waajur itam benn taraanga bu mu def ci doom dana tolloog dégg nga taraanga ji ko doomam yi di def yëpp te mun mënuñu ko caa dab kon yàlla mu réyale noonu waajur réyal ay jëfam moo tax kenn mënul defal waajur ba fay ko bor la boo xam ne lam la lebal dang nga cay avancé waaye nag teng si la waaw bal la boo ko dóoree ci miir bi day dellu si ci yow moo tax yonent bi ne kon boo bëggee yàlla nangu say julleeg say koor nee na na nga fonk sa ñaari wayjur soo bëggee yàlla nangu say julleeg say koor na ngay defal nit ñi te yàlla tax te bañ leen di ñaax ñu ne ko ku leen ñetteel mu ne al mukaddibu bil qadar mooy ki nga xam ne dafay weddi dogalu yàlla waaw inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar waaw moo tax bokk na ci charte ngëm nga gëm dogal yu metti yi ak yu neex yi waaye koo xam ne yow eh, affaire bi daal day baax ci sa côté rek waaye bu baaxul moom nga wut feneen foo weeru am feneen foo jiiñ waaw moo tax al mukadibu bil qadar mooy koo xam ne commerçant la waaye saa bu commerce yàqoo mu ne samay mbokki commerçant ñoo ma liggéey bu dee ne lakk la ñu ne ñoo ma liggéey moo tax sama cantine bi lakk waaw su dee ne taw la ñu ne ñoo ma liggéey moo tax ndox mi indonde ba cantine bi yàqu mu ngoog ah su dee ne ki ci kër gi la am ñu muy wujjeel su doomam làqoo génn àdduna du gëm ne yàlla ko rey def naan dañ koo liggéey wala dëmm yee ko jàpp waaw su ko defee nag day dem ba yàlla moom amatul benn dogal ciy jaamam lu ne rek am na fuñ koy féetale waaw élève bi jàng yàlla dogal amul examen ah ñu wut itam fuñ ko féetale dañ koo liggéey waaw waaye moom jàngkat la kon képp koo xam ne lii moom mooy sa ko te mooy lan weddi dogalu yàlla bañ koo wéer yàlla di ko wéer ci yeneen moom itam yàlla du nangu julli naafilaam du nangu julli farataam xadis bi nag sayidna abubakar radiallahu taala anhu moom moo ko solo moo ko nettali nee na ithnaani yucajjiluhum allahu fi dunya qabla al axira al bagyu wal uquq nee na yonent bi sallallahu wax na ne ñaare ngi nii yàlla dana leen gaawe àdduna gaawe leen alaxira bu leen di duma day gaaw bu leen di fay day gaaw ñu ne ko ñaar ñooñu ñan lanu mu ne ki reew ak ki dënge ay waajuram yu mooy ki reew te reewandeem eh, ànd ak tooñ waaw reew ba pare sa reewande ànd ak tooñ yàlla nee na du xaar ba yowmal xiyaam fii la lay duma balaa ngaa dee moo tax koo gis mu réew di tooñ nit ñi seetaan ko rek balaa dee torox force waaw yonent bi du waxantu te du fen du fen mukk nee na képp koo xam ne da ngay tooñ say dëkkandoo di tooñ say mbokk waaw xataa ca barab ba ngay liggéeyee nekk fa di tooñ nit ñi di leen def lu jaaduwul bala ngaa dee torox yàlla lay toroxal nee na képp koo xamante ni itam faale wuloo say wayjur toppatoowu leen sa yoon nekkul ci ñoom balaa ngaa dee torox kon ñaar nii moom fokk torox fii ci àdduna ba pare di xaar nag seen toroxte àllaaxira kon ñaari toroxte la ñu am bu àdduna ak bu àllaaxira ki noonu itam yàlla noonu lay gaawee ci defal leen lu baax nit ki nga xam ne dafay toppatoo ay wayjuram di sonn ci ñoom kooku du tedd di mukk fii ci àdduna waaw ci sutura lay dund ci sutura lay dee moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi yàlla di ko jàngal ci alquran ne wayjur fonk bi ko yàlla fonk tax na lu taq ci moom sax dafay taxaw taxawaayam moo xam ki mu bokkal bàyyi la wala ki mu bokkal ndey la waaw ñoom itam dañuy daal di am cër ci yow moo tax ngay gis ci alquran suñ boroom léeg-léeg mu mere koo xam ne wayjuru yonent bi la mais du bëgg mukk yonent bi feeñ ci moom yàlla mooy jël ay matuwaayam jàkkaarloog way jur wa wax ak moom moo tax lim doon mere mere abu lahab bëggul yonent bi xas ko ndax saar yi dend ak tabat yadaa yëpp xul la ko wax waaye bi mu agsee ci tabat yadaa daf ne yonent bi boo ne bu ma nee la xur rek kon nag jàngaluma la yar ci diggante way jur ak doom dama la ci jàngal ñàkk teggin tey nag danaa la wan ne la ñii bokk ak sa baay cër bi nga jox sa baay jox leen ko kon nag dandul yonent bi dandu yàlla wax ak abu lahab ne ko tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna kon mbokk yi alquran lépp jikko la moo tax yonent bi léppam di jikko yàlla taggu ko ci jikko sayyidatuna Aïcha ne mooy alquran jiy dox kon nag fokk doom yi njaboot gi ñu yar leen ci jikko yi nga xam ne moo dëppoo ak jikkoy lislaam seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi ci seen émission al hidayatu min al kitaabi wa sunnah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu